wa axastu ma nafa min hazihi dunia wa durrahan dafa fi laylil jumua jamaa lil jaamihu yowmal jumaa maxtira lii waliya wax di jamaa mooy seydil ayam bana bismillahi wa ala millati rasul wa manhajil xadim miim ga ak haa marbuuta ba ak haa kabiir ba bu ci nekk malaaka bu ko neexee mën na ko wi yàkkali ko ba mu toll ni àdduna ndax waxi ku tedd ki de waxi ku tedd kee naqli min lawhil mahfuuzi abada ay waxam ca lawhil mahfuuz lay jóge man it ambodeni lahu min asheytaani waxaadi li manafihal awtaad moo tax audu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim la jullit taamoo tàmbalee waaye ambodeni lahu min asheytaani muritit da koy baaxoo tàmbale loolu moo tax iblisu farra jooju wa axasu ma min hazihi dunia wa durrahan dafa iblis daf koy daw waa këram di ko daw di daw ak njabootam di daw fu ñuy waxee ay waxam fu ñuy nettalee ay waxam loolu moo tax fa ak njabootam nekk ibliis du fa jege kennam du fa jege moo waral iblisu farra wa axastu ma nafa min hazihi dunia wa durrahan dafa fi yawmil xamiis yi ci bis bii la ko bind te alifu alxamis ginnaaw bu ñu ziyaaree kilifa dëkk bi Cheikh Mouhamadul bashir ziyaar bi di jàll ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi jiite kilifa yépp ñun bu ñu toogee di wax dafay mel ni dañuy wax bi bismi cheikh Mouhamadul Moustapha Hafsa nga xam ne am na loo xam ni mënuma ko ñàkk bañ a leeral cheikh Moustapha Saleh dama koy faral di wax ni cheikh Mouhamadul Moustapha Hafsa mooy sama wasila waaye yaay sama idol te jàppale ni mi ngi ci jataay bi moom Serigne Moustapha Saleh ndax doomam a ngi fi te doomay baay waaye ma bëgg a wax ni wax naa ko sëñ daaru ma naan barki démb ci téléphone ñu ko lii néegu xaw a bàll rek mooy yóbbale néegu mber yi maamare ma sëy wéy juru Seydina Ousmane lépp di lenn ndax diggante Seydina Ousmane ak yaa xafaar diggante Seydina Ousmane ak yaa mooy sama diggante Cheikh Sidil Mokhtar ba tax na li ñuy tuddee li ñuy wax continuité rek ci la nekk lu amoon ca kilifa yee te daan rafet di répété ci njaboot gi ñu koy gën di rafetal ak di ko fàttali wazkuru laha fi ayamin maadudat ci alxamis ba alxamis ji dellu si kepp la wazkuru laha bi nag fi ayamin maadudat boo ko bëggee firi danga koy firee rek ci nàkkal di yéene lu baax di ko wax di ko def te bul ne defal naa ko démb duma ko def tey waskurulaha fi ayamin madudat ayamin madudat mooy juróom-ñaari fan yi juróom-ñaari fan yi li nga ci yéene ci lu baax di ko wax ak a def yi defoon naa ko alxamis kon jarul ma koy def àjjuma ndax fii ayamin madudat waxi ku tedd ki la moo tax te ca xasida gu gàtt googu ci la waxe ne allahu akbaru min xaqdi wa min amali ca xasida googu la wax ni itam walastu axsha walla arju siwa allah di sëñ sii di doon wax léegi dafay am loo xam ne bu rogalaatee ca moom ñëw ci na di tasaaroo ci njabootam ku ca wax feeñ lu rogalaate ci waxi ku tedd ki mbaa ay jëfam mbaa ay anwaaram te Ceerno doy ko mu ne ko sama mbóot ci yow laa ko denc mu tasaaroo ci ñéppam ku ca wax feeñ looloo dal sëriñ Ahmadou moom Cheikh Mouhamadoul Bachir Abdou léegi moo dal itam sëriñ Sidi dafa mel ni cant yi day tegaloo rek ndem ku tedd ki moo wax boromam ni ko ka fayta ni maata jax-jaxa mina layaali fa shakartu ba jaxa ku tedd ki ndem mooy wax ni fa shakartu ba kon nun tamit nu ne la ñuy sant mooy li sax gànnee wax ndax doo xam nooy sant waaw moo tax ngay sant nu ne di làmbatu ba xam ban la ci ko tedd ki nangu ci làmbute gi ngay làmbute di sante nu ne te la in shakartum la azidannakum ndem ñu ko sant ñu dolli la ñun li nu bëgg mu dolli nu ko nuy gën ni katiw ci moom katiw ci moom waaw nacc gi mu ne nu nacc bu nu bëj baj baji jëm fenn mbaa ci lenn te ku mu tee doo rëcc nag moom du tee luy rëcc waaw ku mu tee doo rëcc su ma ko sañoon li ñuy tudde fiir bu doon nita fekkoon nit la doon ku ñu naan ab sëriñ la mbaa boroom xam-xam rek wala wañu ñu ku baax la rek nangam ak i nangam waaye dafa weesu yooyu yëpp moo tax am na baat yoo xam ne doo ko jëmale bu doon nita mbaa nga sañ wax bu doon nita baat boobu ñuy tuddee fiir bu doon nita bu doon nita da ko koy mën a jëmale waaye da koo doonul daa yor forme bi te yorul fon ba forme ak fond bokkul mhm. jutta بمفرد لنا فاخ الجمل خط لنا مخجل جيش wa formule la ñu indi bi mu nu bëggee dimbali la ñëw la ñëwee ñëwiinu doomu aadama waaw ñu koy mën a gis naan nit la ñu koy mën a gis naan nit la mu nuy wan loolu te fekk doonu ko ne nu aadama du maamam bokkut ak ñun maam ndax aadama ba ñu koy tën da koo fekke il était présent ba ñuy créé Adama da koo fekke bu loolu yëpp amee bu loolu yëpp amee lépp daje ci moom lépp daje ci moom lépp daje ci moom mu ne barakatul maahi an la yanta charrat waxasamat kulliyati wa basharat muy tasaaroo fépp muy tasaaroo fépp zahiran wa batinan am yu gis am yu ñu dul gis waaw boroom daaru mooti mii lu ne ab jël def na ko fi borom daaru mooti mii nga xam ne ku tedd ki moo ko ni sama mbóot ci laa ko denc taalibe nee na bëreet dem làqu wut paaka akub layu boole ay waa yàllaam dagg lépp teg ca ba soog ni dal soog ni dal daanu dem àjjana soog ni dal daanu dem àjjana carrière bale ca ndokk bu ñu daan gas ku dara màbbu ci ku dara màbbe ca kaw daanu bàyyi faal yi foofa lañ lay suul ba noppi boole laa ko saaga ni nangamtaan tànn dem naa àjjana koo koy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul biral baax na yelu itam baax na fi mu nii am na foo xamante ni bii ku ci wax ku tedd ki ba bëggee wax jërëjëfe sëriñ tubaa sax boo ko bañee doog bu la neexee yelu ko te du tee nga am li nga bëgg ndax moo ni chakara nii inda jamii jundihi mus xasadu ziyaarati min indihi dañuy def ak njooxe naa itam déy suban ngoon ba ko yàllay sant ca kanam malaaka yépp la ko sante ba tax na benn malaaka du xëy def liggéeyam te ñëwul ziyaare Tuubaa dellu ni xef ak xippi mus xasadu ziyaarati min hindihi waaw ku yàlla sant sëñ Ahmadou wax na ko fii léegi bu mu xam bu Cheikh Mouhamadul Bachir ku yàlla sant hmm? yonent yi di la sant malaayika yi di la sant jibril mikaayil israfil israil di la sant ba malaayika yépp di ñëw di ziare si Touba di ñëw ak a dellu waaw kii ku ni moom nga yaakaar kon sa cant waroo ko wutal waxtu dëgg la Mbàkke waxtu laa koy sant déedéet jamono bu ne danga ko war di sant waaye nag la Seydina Ousmane daan wax rek daf ne ànd ak Serigne Touba doy na waaye ànd ak Thierno ëpp na. dëgg la ndax boo àndee Thierno Thierno da lay fay Serigne Touba fay la yonent bi fay la yàlla fay la boo àndee ak Serigne Touba nag yàlla da lay fay yonent bi fay la Serigne Touba fay la. kon ñun plus la am maddaliyal husna wa maddali zayed man di yaqudu haaka xabla maddiyat ñun plus lañ yor loolu moo waral ñu am daaru al muti demeure du donateur fii la ñuy joxe. loolu moo waral kuréel bi war a taxaw. dëgg la Mbacke. kuréel looloo tax kuréel bii war a taxaw. Hmm. ñu ne jëwriñ ji jan lañu ciy njëkk a ñu tudd tur woo xamante ne bi doo ko tudd benn murid di laajte moo xam ci biti réew mi wala bitim réew moo xam cinq continents yi fu mu mën a doon doo ko tudd ñu naan mooy kan ñu ne mooy jëwriñ numéro un ci cellule muy Cheikh Gànn waaw barki dem dana ko ci su ma neexee su ma nee dama ko ci téléphone su ma nee Gànn su ma neexee teg ca kun ndax mu jama ba bu wàcc boo ko fa jëlee rek ñetti tombee bu fa jógee rek kun ñëw waaw dëgg la hmm? ndax ñetti tombee bu ca nekkee boo ne Gànn bu la neexee nga ne ngani am nga ca ngani <laughs> am nga ci gane am nga ci gënn yitam gënn yii ñuy dëbbee hmm? am ci gone itam hmm? bu fa mu jama ba jógee nag am nga ci kenn boo ci amee kon am nga ci kenn am ci itam kinne damay bañ sama doom yaa ñooñu kii la am kinne damay bañ sama doom yi naan waaw sama suñu bàyyi lu muy wax nii li ñu bëgg a wax daal waxumari ilal ne eedu dafa am Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy al maktum lu mu waxoon mhm. te it wax na dëgg wax na dëgg d'une part li ñuy tudde comédien comédien daanaka mooy koo xam ne ku amul souci koo xamante ni bi dara àjjana lay dund waaw yow gis naa li nga joxe léegi dama la koy duubaleel après dafa am loo xam ne ñun noos moo war a doon suñu métier waaye gan noos gan ndax ku nekk ak ni ngay noose gis nga àjjana ak sawara jorul bàyyi ba dee déedéet fii yaa ngi fii sa a ngi sedd yaa ngi àjjana sa xol seddul ne ko <laughs> wala xëyrihi bu càggee na àjjana da bàyyi ba faatu rek ñuy nattale ak di ñaan naan yàlla na nga dem àjjana ak lékkiti laa man fii laay tàmbalee sama àjjana maa ngi ci dëgg la mag hafizani hasamani najjaani allamani man bil huda naajaani ah. sama noo sangoogu ak samay garab maay faj sama bopp dëgg mag maa ngi koy tuub nag di jégalu wax ji sax waaye kuy feebar ku nekk feebar bu nekk garab ga koy faj waaw ndeen dafa am lu mënu baaxee nun ku ci am fële ci ñun allahu xayru man shafa wa man hada wa kashafa wa minhu jaani shifa min kulli daa muqaddari hmm? ak alifam ak alifam wax naa ko Cheikh na mi ngi koy répété ak alifam mhm. day remplacer piqûre ak baam walla ab nuqtaam day remplacer comprimé man maa seet ba gis ko amoo droit ni maa ngi seet waaye tëb tëb rek sa bopp yi metti wala sa fenn kër rek nga jël sa téléphone woo médecin ba docteur ba man du def lool